Euh, Serigne Cheikh Fall dana dikk ak nun ci màggal euh, ni ñu koy defee léegi euh, màggal ni ñu koy defee léegi waaqia bi dëppale ko ak xool ba xam dëppoo naag na ko Serigne Mouhamadul Moustapha doon defee am déet danañu ci dikkal incha allahu taala mu mel ne Serigne ma boo nuyoo rek ñu dikk ci laaj bi.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 ba kenn ku ci nekk naal li nga fas yéenee mottali suñu borom may la kattan ak wér goo ko àggalee te ñu ànd koog taalibe yi waaw jërëjëf sëñ ma Samba noo ngi nuyu mbooloo mi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi ñëpp ni ngi ko waxee rek ci wàccaayu màggal gi sëñ ma Samba nag sa laaj boobu day mel ni buñ bëggoon a xam jamono yii nan lañuy màggale ak bu njëkk day mel ni suñ suñ suñu doon joxe misaal.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 Euh, ban bis la ñuy màggal léeg-léeg nit ñi duñu xam lool maanaam dañuy tey la màggalug nàngam rek nga jóg gàddu say téléphone ak ànd ak nàngam nàngam aywa waaw xamal fi ne loolu suñu masam boo koy xool li koy war a dëgg-dëgg mooy ni ko suñu Ahmad dafa faral di wax xam nga màggal day mel ni ab la woon waaye dañ koo ñambaas léegi ñambaas woon ci teg nag léegi ci la nit ñi nekk ba ba far fàtte jëmi séer bi waaw ndax formule màggal comme niñ ko defee bu njëkk nga xam ne tey ci barab bii ku baax ki nekk fi lañ koy defee soo ñëwee ci barab bi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 kon day mel ni jamono jii nag am nañ fi ni seen màggal lépp mooy bëgg dërëm la waaye màggaluñ ko ngir ngir bëgg ay ngërëm wax ni waaju màggal guddi tuddee ko ak noos suufeel na yàlla waaye ba malaa ko ne ko noos maanaam comme si guddi màggal gi ak noos nga ko tuddee suufeel nga yàlla waaye nag da nga xaar ba ëllëg ba dajeeg malaaka te ñu bare bare guddi màggal moom noos lañ ko jàppe mooy lekk lu neex wëreelu ba samaan set